puis album bi neex ma tamit. waaw c'est am na c'est très coloré. c'est très coloré c'est différent euh, mbalax mi saf na. Hmm. waaw mbalax mi saf na lool et puis une vraie identité culturelle qu'il a ramené quoi hmm. waaw. la ñu mën a wax de ce qui est de Pape Diouf. Pape bon écoute c'est un grand artiste ah Pape Diouf euh, il a c'est un grand artiste son premier album Partira mi ngi génn en 2005. Euh, Conte partira une belle histoire d'amour boo xam ni c'est entre les l'émigré et sa femme partira et puis après mu génnee jot na 2005 génnee Kaskas 2013 <laughs> Kaskas euh, tu t'en souviens ak Ndiolé ah génnee euh, Enjoy son avant-dernier album bi nga xam ne moom la yóbbu à Bercy donc c'était pour la première fois un jeune artiste dem Bercy jëlal ko boppam. jël ko ne da koy tëgg euh, sànjaafu ko xam nga loolu yombut. longévité bu bi ci la scène musicale mooy bi nga xam ne benn album deux album la nga mujjee fay mais Pape loolu liggéey moo koy def quoi loolu liggéey moo koy def am plan de carrière xam nga plan de carrière nag mooy liggéey ah plan de carrière mooy liggéey. seen directeur général dafa xam ni dafa xalaat ni Sénégal dafa war a continuer Sénégal dafa war a gudd moo tax am na noo xam ne noonu la ko liggéeyee n'est-ce pas ok ñu ngi lay jaajëf jërëjëf merci.